asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaare di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan tey ji nag ni ñu ko baaxoo di def di génn ci ay sorties yoo xamante ni dañu ciy waxtaan ak askan wi rawatina lépp lu jëm ci sunu wàllu diine. tey nag ñu ngi fas yéene waxtaanee woykat yi nga xam ne ñooy woykat yi nekk Sénégal dañ leen di wax ay chanteur ñuy woy ci musique ci mi nga xam ne ni la ñuy woyee ku nekk xam na ne woy kenn du wax ne dafa bon ndax sunu mag ñi bu jëkk woy daf daan dolli njàmbaar xare yi amoon yépp géwél yi ñoo nekkoon ci kanam di soññ sunu kilifa yi di soññe di nekk di taggaate di wax wax ju rafet di dolli ak njàmbaar di la xamal sa bopp di la delloosi ci askan wi nga bokkoon bi nga xam ne xamoo ko woon daf la umpale woon yooyu yépp ñu koy def mu doon lu am njariñ daan fexe ba nit ki xam boppam te ñu ngi koy jaarale ci woy di ko xamal boppam ci fànn nga bokk xamal la saw askan xamal la sam réew say cosaan yépp ñu xamal la ko fexe ba nga doon jàmbaar xam sa bopp ba boo jógee xam fi ngay jaar loolu dañ ko daan def waaye léegi ñu seetlu sunu woykat yi ni nga xam ne ni la ñuy doxalee te doxalin wi doon doxalin woo xamante ni ku am xel wala ngay kilifa diine wala ngay yëngu ci diine da nga xaw am naqar tuuti da gis ñuy way di foye wala di woy mbirab yoo xamante nii di woy ci alxuraan ji nga xam ne téere la boo xamante ni suñ borom moo wax ne moom moo wàcc alxuraan te moo koy wattu wax na ne yéen jullit yi seen lépp seen lépp seen lépp àdduna ak seen lépp àllaaxira mi ngi ci téere bi seen ak defaru mi ngi ci téere bi seen ak fonk ko mi ngi ci téere bi seen ak dem àjjana seen ak texe ci àdduna ak àllaaxira mi ngi ci téere bi nga xam ne wàcce nañu ci laa leen tëral seen yoon wi nga xam ne mooy yoon wi gën a jub muy yoonu siraatal mustaqim loolu nag bu ñu demee ba ñuy jël misik bi di ko boole ak ay alxuraan di jël ay saar yoo xamante ni màggaayam ak alxuraan lépp araf nekk sax paase na màgg genn araf rek màgg waxuma la saaru lëm wala ay aaya ñu jël ko di ko woy di ko boole ak ay tëgg di ko boole ak yoo xamante ni kenn xamul fu di ko woyee ci béréb boo xamante ni. te sunu borom waxoon ne téere bi ku laabul bu mu ko laal ñu koy yóbbu ca baar ya di ko yóbbu ca hôtel ya di ko yóbbu ci béréb yoo xamante ni seetlut ñu ko fay dugal di koy alxuraan ñëpp na la kenn waxu ci dara te ñi koy def ñëpp di tuddoone ay jullit lan di tuddoone ay jullit lan yoo xamante ni yu am xër ci diine ji la benn bu fekkee xër tax ñu koy def wala ñàkk xam war nañ leen a wax bu fekkee xër la alxuraan kenn du ci xër ba di ko dugal foo xamante ni fu sellut la kenn du ci xëri tamit kenn du ko umpale ba di ko fooye ndax mooy constitution jullit yi mooy li nga xam ne ci la ñu war àttewoo sunu àdduna di ci àttewoo ëllëg yomal xiyaam ku la gën a fonk alxuraan moo la gën a tedd ku la ko gën a jàpp moo la gën ku la ko gën a teral moo la gën a tedd du ngeen fàtte mukk sunu mag ñu baax ñi ñu sëriñ Tuuba alxuraan lu nekk teg na ko nee na alxuraan mooy sama docteur alxuraan mooy ki nga xam ne moom lay teral alxuraan mooy ki nga xam ne moom la daan def lal boo xamante ni daf koy parfum ba alxuraan ba lal bi lal ko ba mu nooy nga jàpp ne da cee war a tëdd mu teg ci alxuraan ba noppi di ko tagg wax ne doktooram mooy alxuraan ñu jël loolu di ko kafe tey di ko dugal fu nekk di ko woyee ñëpp na ceel la ñuy jël jumaa ji nga xam ne ay jumaa la yoo xamante ni sëmbalu lislaam la ñu koy jël di ko boole ci seeni Euh, li nga xam ne mooy ci woy yi di ko boole clip yi nga xam ne moom la ñuy def seen clip yi nga xam ne moom la ñuy def ñu ko ciy dugal di ko wane ci béréb yoo xam ne kenn xamul fu mu doon di tëgg di fecc te alxuraan te lislaam amul lu gën a rëy jumaa jumaa ak jàkk ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale diine jëpp ñu jël ko di ko def muy symbole lislaam foo gis jumaa xam ne ay jullit ñoo fa nekk yuy jaamu yàlla muy seen béréb boo xamante ni fa la ñuy noose seen i mbir fala la ñuy defaree fa la ñuy takk sëy fa la ñuy waxtaane seen wàllu diini fala la ñuy wàlle waxtaane seen wàllu social ak seen lépp fa lañ koy waxtaane ñu dem ba tey ñu koy foye di ko boole ci musique kenn xamul lu mu doon ndax loolu di jël sunu mag ñu baax ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon di jël seen xasida yi di ko dugal ci biir woy yi di ko woyee ci baar ya di ko woyee ci béréb yoo xam benn béréb sellul di ko dugal ci seen béréb yooyu di ko caaxaan fu ay góor ak ay jigéen di taqaloo xasida sëriñ bii sax sëriñ bi dafa aaye fi nga xam ne dañ koy jàng jàngin woo xam ne sell la góor ak jigéen di fa jaxasoo sax te ñëpp di wut lu baax sax dafa waroon ay baaraas yoo xamante ni góor ñi dañuy nekk nële jigéen ñi nekk nële tey bu ñu demee ba ay jigéen ay musiciens di ko woy ci diggante yoo xamante ni yu sellul la ñoom ñuy jaxasoo góor ak jigéen ñuy woy bayiti sëñ tubaay yi nga xam ne daf ciy tagg yonente bi sallallahu alayhi wasallam daf ciy woy di tagg loo xamante ni mooy sunu boroom dégg ngeen sëriñ bi fu wax ne salaatu sitta bi mat xi sitta juróom benn weer yi damay tagg yàlla juróom benn weer yi damay julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ñu jël xasit ba yite xasidaam yooyu di ko woy loolu dara dara gënu koo ñaaw dara gënu koo doon ñëpp na pett ndax loolu ñuy def di nga gis ñu def ko ci wàllu yeneen diine yi nga xam ne diine yi chrétien wala yeneen diine di nga gis ñu ko ciy def seen symbole yooyu mas ngaa gis ku ko ciy def di ko woy loolu amul ñu ñëpp ne ceel kenn waxu ci dara te ñoom ñu woykat yi ñoom ñëpp ku ci nekk yaa ngi tuddoo genn kilifa diine goo xamante nii moom ngay wax ne moom ngay askando rawatina bu dee ci yoonu murit nga gis jumaa joo xamante ni kenn julleegu ci jumaa joo xam ne nitug yàlla moo fi nekkoon seet li ëpp ci alalam li ëpp ci dundam li ëpp ci alalam mu jël ko def ko ci mbir def ko ci néegub yàlla wa annal masaajida lillaahi di néeg boo xamante ni néegub yàlla la mu jël léppam def ci muy sëñ Sidi Muxtaar jël léppam léppam léppam def ci jumaa jooj bu demee ba woykat di ko génne di ko def symbole jumaa joo xam julleegun ko ñu di ko def symbole di ko def ci ay clip di ko génne lu ko gën a metti amul amul ñëpp a ci ñëpp a ko metti ñuy jël jumaa ji nga xam ne Touba jumaay Touba muy symbole ñu def ko fii ngato ne ab gato lañ ko def di ko dagg ñëpp di ko gis mu metti jullit yëpp rawatina taalibe yi ñu gis jigéen yoo xamante ni day wax ne seexal nañ ko sax ci yoon te ñëpp yoonu murit wi ci gën a yëpp ñi ci ëpp ñëpp moom la ñuy tuddoo te kenn mosoo dégg ñu woy président bi wax ci moom lu kii woykat ya fi woyoon di wax ci président nangam seeni woy lu nekk sanctionné nañ leen ko teg leen ko ca te ñoom ab président rek boo xam ne daf fiy nekk tey bu subaa mu jóge fi ñu jël ko di ko woy mu sanctionné leen fi ba kooka lu nekk dañ na ko tey ñuy woy suñu kilifa diin yi kilifa yoo xam ne ku nekk da ci am àq yow àq ji nga ci am kenn bu la ne bul woy kenn du la ne nangam mais ni nga ci amee àq la ci nit ñi amee àq kon àqi jàmbur yéen ci nit ñi am bàyyil leen ko fa bul foyee seen kilifa yi. am na ko mas laaj kilifa gu mag gu nu génne ci télévision bi génne ko ci clip benn tubaab di laaj ndax kii de doon sentir ndax woykat la woon mu ne ko déedéet. ndax jàpp na ne ni mu koy présenté di teg photoom di ko def nii di kii jàpp na ne kooka ab woykat la woon looloo tax ñu war koo def ni moom muy idolom loolu dara gënu koo ñaaw ñu dem ba suñu kilifa yi ñu leen di woy ci télé yi di génne di génne guddi ak bëccëg ci waxtu wu nekk ñu leen di woy dem fa fa nit ñi gënee bari di fo ñu naa ku sopp sëriñ diw sàngam ku sopp diw sàngam na yëkkati loxoom ku sopp diw sàngam na def di foye suñu kilifa yi te loola kenn ñemewu koo foye président bi fi nekk wala keneen loolu di lu ñaaw ñu war cee wax kon nit ñi bu ñuy foo nan fooyee leneen diine kenn du ko fooyee ku koy fooyee di nga torox yàlla dana teg ci yow musiba fii bala nga fiy jóge boo fi jógee yàlla dana la te toroxal ci kanamu jaam yépp dana la toroxal ndax lislaam kenn du ko fooyee yonent bi nag dafa waxoon ne ku gis loola naqari na nga ko dindi ci sa loxo boo ko mënta dindi sa loxo nga dindee ko sa làmmañ boo ko mënta dindee salaam mañ nga dindee ko na mu ko waxee man raxaa min kum mun karan fa lay xayr bi yaddihi ba xaddis bi àgg la ci gën a metti nag mooy ki koy dindee la gën tuuti ci dindi ga mooy nga bañ ko ci soxol Alpha Blondy fii la nekkoon woykat la boo xam ne ñëpp xam na ko Côte d'Ivoire gi la newoon nga xam ne moo di président bi dana ko woon yow na nga nekk idole bul wat sa bopp bi wateel bu ñaaw bul def loo xamante ni xale yi dañ ci yor ndax xale yow modèle nga boo xamante ni ñëpp dañ la fiy roy kon xamal ni ngay doxee ñun suñu woykat yi di yëpp nit ñi di leen fontoo ci seen wàllu diine suñu pas-pas bu ñu demee ba diine ji nga xam ne moo nu defaral suñu mag ñu baax ñi defar nu des ci lu mën a defar ak lu mën a yar ak lu mën a euh, defar nit amul lu dul diine lislaam ak suñu mag ñu baax ñi nga xam ne dañoo jàmm yàlla ba boo leen xoolee rek defaru boo xoolee seeni i kanam boo yëree seen mbind kooku moom bu yàggee nga nekk nit koo xam ne ko defaru al insaanul kaamil ñu dikk ba jamono ñuy fooyee diini ji li ci gën a metti nag mooy bii mujj bii nga xam ne moom daaree jumaay masaalikul jinaan ji nga xam ne jumaa la joo xamante ni nangami milliard liñ ci def ci milliard kenn xamul nu mu toll ah mi milliards ñu def ko ci jumaa ji ubbeeguñ ko sax ay woykat jël ko di ko def ay émence di ko kii di ko génne di ko def ci ay woy lu ko gën a ñaaw dafa am Hmm? te ku ko def bala nga fee jóge di nga torox ci àdduna da nga torox musibam yàlla ak mbugalam yàlla dana dal ci sa kaw ndax lislaam kenn du ko foye néeg boobu néegu yàlla la képp ku ko foye bala nga fee jóg sa àdduna dana yàqu sa àllaaxira dana yàqu te mbugalam suñu borom dana yi ñuy def nan ko arrêté te xam ne lu nuy def nan bàyyi diine ji bu ñuy fo ñu fo seen fo imaam Malik bi ñu ko laajee ne ko ndax euh, fecc araam na wala dagan na wala araam na dane xaw ma na xaw ma dagarul waaye ñun ña gën a yées ca suñu dëkk ñoo koy def te noonu rek la demee ñi gën a yées ñoo koy def kon nan bàyyi bu ñuy foox nan fooyee leneen te bàyyi fi diine lislaam bàyyi fi sunu mag ñu baax ñi dañ cee am àq nit ñi am ci àq kon bu ñu fooyee àq nit ñoo xamante ni li suñ symbole la kenn ñemewut a dem ci constitution bi wala ci nangam loo xamante ni bu Sénégal bi nekk di ko saboote wala dara constitution yàlla bi moo gën a rëy fuufu gëm-gëm yi ak pas-pas yi ñoo gën a rëy fuuf yi ñuy def doy na sëkk. ci ay fecc ak modèle ak yeneen yoo xam ne col yu awrawo yu awrawoog yooyu yëpp yoo xam yooyu seen yëfi bopp la kenn lijjantiwu mais li jëm ci diine ji nañ ko fi bàyyi li wa rasul bàyyil ko fi nit ñi ci nit ñi nga xam ne day dundal seeni i ruu di dundal seeni xol mënoo kilifa yi nga xam ne dañ leen bëgg di doon suñu idol ñu leen di roy bu mu demee ci Sorano dem ci baar yi dem ci fan yi woyee fan yi caaxaane ku sopp sëñ Tuubaa ku sopp sañ diw sàngam mel ni ñooñu doon dut ay nit ñoo xamante ni fan leen war a soppee fan leen war royee béréb boobu la bërëb boobu mooy fi leen wara a soppee wala mooy béréb boobu lañ leen war a royee ah ne yëf yi jeex tàkk ñu xam ne lislaam kenn du ko foyee ku koy foyee di nga lii nag lu tuuti la fekk bàyyiwu leen duñ bàyyi te buñ dellusiwaatee dañ ko gën a détaillé ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. yéen a ngi ànd seen portail Baol Média nekk fii ci Mbàkke